Moussa ah ci libération yi nga xamante ni ah, ñu ngi koy dégg ci ki nga xamante ni moo di Cheikh baara ak Aliou Sané justement ak Aliou Sané li nga xamante ni procureur euh, bañ na lii di liberté provisoire bi ban jàngat ak ban gis-gis nga ci am. waaw jàngat bi njëkk moom mooy procureur moom bëri na doole ci réew mi lool lool lool lool lool. surtout procureur doole lool ci réew mi. trop de pouvoir ci koo xamante ne man jàpp naa ne exécutant la ci exécutif. parce que qui exécute la politique pénale du gouvernement c'est le procureur te boo xoolee ñoom ñaar ñëpp juge bi nga xamante ne moom amul benn pété ci euh, procès juge yooyu daf leen a bàyyi ki nga xamante ne amul benn féete bàyyi leen ne dem leen ñibbi ki nga xamante ne moom dafa am féete dafa far ne doo leen ci génn te duñu génn parce que effectivement Cheikh Bara euh, dañ ko may liberté provisoire procureur def appel liberté provisoire boobu noonu du mën a génn ça veut dire que ni ñun suñu système judiciaire li koy lompoñal à chaque fois mooy dañ ne euh, le parquet dafa am cordon ombilical bu ko lié ak l'exécutif et dafa mel ni moom moo ëpp dooleeti nag ci système judiciaire bi moo tax boobu ba léegi ngay dégg euh, sénégalais yu bëri di réclamer mu am juge boo xamante ne moom mooy mën a saytu la liberté et la détention mu doon juge yu euh, siège parce que magistrats yi dañoo bëri dañoo bëri façon am na ñoo xamante ne parquet bu ñuy wax dañuy jug taxaw moo tax ñu naan leen magistrat debout am na ñoo xamante ne dañuy toog ñooñu faruñu fenn bokkuñu lu bu ñu naan indépendance de la justice euh, xëy na ci ñu lay gën a euh, muccee ayib donc kon euh, Cheikh Bara lan la def exactement les chefs d'inculpation koo xamante ne nee nañu wëy dafa am ñu ñu jàpp ñooñu tudd turam loolu moom mooy lan parce que damay xool kajoor neexuma rek léegi ñu jàpp ma ma ne kajoor ma yónni et puis ñu ñëw jël si ko aussi simple quoi au moment boo ñi ne appel à surection nangam borom appel à l'insurrection yi ñu ngi doxi seen soxla ñu ci bëri parce que ku taxaw ba ne le pays nekk en feu et en sang bu candidature bi jàllul kooku gisuma ko ko gën a doon appel à surection ki taxaw assemblée nationale ne bu candidature bi jaree ñu dox ci ay cadavre dañ koy def et pourtant ñooñu ñëpp ñu ngi doxi seen soxla tranquillement mais Cheikh Bara Ndiaye parce que Cheikh Bara Ndiaye la ma nga ca prison bi. kan moo wax dañuy dox ay cadavre ñu koy. l'honorable député Cheikh Seck. moo ne lan. mu ne candidature président Macky Sall bu jaree ñu dox ci ay cadavre dañ koy def. ah bon loolu la wax. loolu la wax mais kooku kooku waxul ne xaw ma lan géej gi affaire yooyu noonu. de toute façon. xam nga wax aussi tamit day am ñoo xamante ne par exemple. ñoo xam am nañu représentativité ci dëkk par exemple parole Ousmane Sonko wala parole Khalifa Sall wala parole président Macky Sall c'est différent ak parole Cheikh Seck par exemple. kooku ba mën nañ ko minimiser par exemple ne non xam naa ne c'est ça kenn kenn du wax loolu mais aussi sa argument juridique est-ce que war nga ci boole loolu parce que constitution moo ne bon loi wu réew mi ñoo ne ñun ñëpp a yem hmm. moom waxul ay kii ba kàddoom yenn dafa ne ñun ñëpp ñoo yem devant la loi loolu c'est la constitution l'article premier loolu la njëkk a andi comme principe sénégalais yëpp ñoo tolloo devant la loi alors léegi euh, député euh, wax nga ko une représentation populaire Cheikh Cheikh Bara chroniqueur bi wax xalaatam ñoom ñaar seen voix ban moo ci gën a kii kii voix wu assemblée nationale la taxaw wax ko lii ma lay wax nii léegi léegi fi ma lay relancer da nga da nga procureur li mu def tegu ko fenn wala boog li mu def dafa c'est son droit moo tax ma ne la il a trop de pouvoir parce que def appel mooy d' accord uma ci décision bi loolu ku nekk am nga sañ-sañ. Mhm. yoon moom moo ko may sañ-sañu li juge bi àtte moom d' accord ci. bu interjeté appel nag yoon dafa ne moom tant que dugal na appel rek kële li mu wax neen na. d' accord bon Kajoor